ci barkeb xaadimu rasul nee na sëñ ñaan jóob nag ak Cheikh Ibra Fall nee na seen njëlbeenuk daje nee na sëñ ñaan jóob dafa dikki njaareem toog fi barab gis borom tànku neen bu fa jaar nee na sëñ ñaan jóob toog xool tànk bi ne borom tànk bii de borom am na ngërëmal yàlla kenn waratu koo liggéeyloo nee na ñu seet boroom tànk boobu ban la muy taalibeeb Cheikh Ibra Fall nee ñu wax ko Cheikh Ibra mu ne ah ku wax loolu nee na ñu ne ñu ko benn waay de moo ko wax mu ne ah wol ma waa ji nee na bañ woo sëñ ñaan jóob mu dikk nee na ah, Cheikh Ibra ko sëñ ñaan yow nga lan nee na mu ne borom tànk neen bee de laa ne am na ngërëmal yàlla nee na mu ne ko wax nga dëgg de kooku diw la nee na fekk muy taalibe Cheikh Ibra Fall mu ne wóol leen ma ko mu dikk dikki Cheikh Ibra daat koy wàcce mu ñibbi këram ne mu ne ko yow waa ji foo jëm mu ne ko xanaa Touba mu ne ko ah déedéet demal Kajoor ak Njàmbur nekk yëpp. ya fa nekk yëpp. yàlla nos na ko yàlla nos na ko bu yow ma la xëyaamee yaa leen di ramm. Ah, mu ne ko ah ma ne sama caabi àjjana yaa ko yor. nee na sama caabi àjjana maa ko yor jooju. si ñaan seet seet gisu ko ci baatinam. nee na ndeke. nee na ndeke wàll yi noonu la ñu ëppalantee kattan. sëñ ñaan ne mu dikk këram. ne ne mu dikk këram. dox ba benn jamono. mu dox ba benn jamono. ñu ne Cheikh Ibra Fall day wàcc na liggéey. mu daal dikk ci barab bi. mu daal dikk ci barab bi. fekk ñu gasal ko. fekk ñu gasal ko. kër gi baagal. kër gi baagal. ba bokk ko caa def. ba bokk ko caa def. sëñ ñaan ne kilifa gu toll ne Cheikh Ibra. sëñ ñaan Jóob kenn du ko def ci kër gu mel nii. nee na may leen ma. ñu mu dugg. ñu may ko mu dugg. mu defar kër ga. mu defar kër ga. def ko kër. def ko yetti kër. def ceeg def ceeg mboqutu. mboqutu nag boo ko déggee. nee na mboqutu nag boo ko déggee. bu njëkk garmi yeeg ñooñu di góorgóorlu. bu njëkk garmi yeeg ñooñu di góorgóorlu. ku ci faatu. ci faatu. day am cër yu bokk ci xam ne. day am cër yu bokk yi nga xam ne. ñi bëgg falu. ñi bëgg a dañ koy fexe ba jël ko. dañ koy fexe ba jël ko. moo tax ñu def këram mboqutu. nee moo tax ñuy def këru mboqatu ba fu ñu koy dugal ba xam ne rek ngay gis waaye doo ko gis nee mu daal di dugg liggéey kër ga ba mu sell ñu jox ko ko ci loxal sëñ ñaan moo ko dugal ci kër goo gële sëñ ñaan nee ba mu génnee li ma Cheikh Ibra ne woon sama këru àjjana yaa ko yor ma seet seet gisuma ko. xawuma ko. xawuma ko. ne ba yàgg xelam dem ci ne loxoom boobu moo ko dugal ci bàmmeel. nee na kon lii la ko Cheikh Ibra Fall doon wax. ndax àjjana. nee ndax àjjana. bunt ba mooy bàmmeel. kon sama caabi àjjana jooju yaa ko yor. kon xam ne ne loolu la ko Cheikh Ibra Fall doon wax. nee na ba kon tax na Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina aa aa aa macha allah nee na Cheikh Ibra Fall nee na Sëñ Tuubaa nee na mboolem taalibe yi kenn ku nekk da ngaa xaaj sa jëmm ñeenti xaaj bii nga jox ko yàlla. bii nga jox ko yàlla. bii nga jox ko say bopp. bii nga jox ko say bopp. bii nga yoral ko sa ko sa bopp. bii nga yoral ko sa bopp. bi ci des nga jox ma ko. bi nga jox ma ko. ah man Cheikh nee na Cheikh Ibra. cër bi mu waroon bi mu waroon jox yàlla jox jox na ma ko. cër bi mu waroon a jox yàlla jox na ma ko. bi mu waroon a jox ay bokkam jox na ma ko. cër bi mu waroon a jox ay bokkam jox na ma ko. bi mu amal bi ma bi ma amal jox na ma ko. bi mu amal boppam jox na ma ko. cër bi nga xam ne bi moom la ko yàlla cëral itam hmm. jox na ko cër bi nga xam ne moom la ko yàlla cëral itam jox na ko kon Cheikh Ibra ko amul lenn kon Cheikh Ibra ko amul lenn lenn rek ngay muy man lenn rek ngay am muy man kon Cheikh Ibra loolu kenn nee na kon looloo tax Cheikh Ibra Fall yëmut ak kenn te lii nga xam ne nii te lii nga xam ne nii Baye Fall yi mel nañ ñu Baye faal yi mel nañ ko ku ko xool ku ne ku ko xool ku ne. man gëm naa ne Cheikh Ibrahima ma gën a gëm Sëñ Touba. nee na moom day gëm ne ne Cheikh Ibrahima Fall ko gën a gëm sañ Touba. moo tax moom laa def naa ko sëriñ. nee na moo tax mu def ko muy jëwrinam. ba tax na. ba na. kon Cheikh Ibrahima. kon Cheikh Ibrahima Fall. yàlla na yàlla taas ci barkeem. yàlla na nu yàlla taas ci barkeem. taalibe mi. taalibe mi. ay soldaar lañu. ay soldaar lañu. soldaar ak civil. soldaar ak civil. bokkuñu àtte. bokkuñu àtte. soldaar. soldaar. bu dem ci guerre. bu dem ci guerre. attan naa fab sa jabar. attan naa fab soxna si jàmbur. sa jabar waaw eh, jabaroo ko. jabaroo ko. te yoon du ko jàpp. te yoon du ko jàpp. Cheikh waa kër Cheikh Ibra Fall nag. waa kër Cheikh Ibra Fall nag. foofa la leen classé. leen classé. ku leen topp. ku leen topp. wala nga xeeb leen. wala nga xeeb leen. loolu sa kër jaaxal na ma. waaw sa kër jaaxal na ma. loolu amu ci lu mu nattable. loolu amu ci nattable. nee na lan nangul nangul yàlla. defal ko yàlla. defal ko sëñ Tuubaa defal ko yonent bi. defal ko sëñ defal ko yonent bi. kenn attanu ko kenn ñemewu. nee na kenn attanu ko kenn ñemewu. sëñ Tuubaa dafa wax ne. nee na sëñ Tuubaa dafa wax ne. Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ibra Fall. Eh, Cheikh ma ne. ma ne. yow. yow. li nga am jox nga ma ko. li nga am jox nga ma ko. desewoo lenn. desewoo lenn. man rek nga am. man rek nga am. Cheikh Ibra ne. Cheikh ne. ah sëñ Tuubaa. ah taalibe yii. taalibe yii. dañoo bëgg àjjana. dañoo bëgg àjjana. ragal sawara. ragal sawara. man Cheikh Ibra. man Cheikh Ibra. bëgguma àjjana. bëgguma àjjana. ma sawara. ragaluma sawara. jëmm ji laa bëgg. sa jëmm ji rek laa bëgg. fu mu nekk danaa ko fekk. foo nekk danaa ko fekk. kon macha allah. kon nee na Cheikh Ibra Fall macha allah. mboolem fi dikk. mboolem ku fi dikk. ak xeet wa nga bokk. ak xeet wa nga bokk. yal na ngeeneelul yàlla wàcc ñoom. yal na ngeeneelul yàlla wàcc ci ñun. ñi nga xam ne ñu ngi dund ci ñi nga xam ne ñu ngi dugg ci ñu ngi dund ci àdduna. yal na yàlla musal ci mbas meeg balaa bi. yal na nu yàlla musal ci mbas meek balaa bi. ñi nga xam ne ñu ngi ci biir ci biir barsax nee na ñi nga xam ne ñu ngi ci biir barsax yàlla na fi yàlla wàccee njëgal ci daraja Cheikh Ibra yàlla na yàlla wàccee ak njëgal ci ñoom ci daraja Cheikh Ibra Fall ñi nga xam ne egg seeguñ ci ñu ngi ci yoon wi ñëw ñi nga xam ne egg seeguñ te ñoo ngi ci yoon wi di ñëw yàlla teeroo teral leen yàlla na leen yàlla teeru te teral leen njëgal ak njëgal ak dee dem àjjana ak dee dem àjjana te mu yeex nag te mu yeex nag bi jeexi Sayyidul Wujud na ngeen ko baal euh, wax ji daf ma nee na wax ji daf koo bett. waaye diggante Cheikh Ibrahima Fall. waaye diggante Cheikh Ibrahima ak Sëriñ Touba. ak Sëñ Touba. ak yàlla yonent bi. ak yàlla yonent bi. amul frontière. nee na amul frontière. jërë ngeen jëf tubaarkalla. jërë ngeen jëf tubaarkalla. nee na mi ngi leen di baalu àq nag. wax ji wax yéene la. wax ji wax yéene la. waaye du waxi sañ-sañ. waaye du waxi sañ-sañ. du waxi xam-xam. du waxi xam-xam. waaye ay waxi bëgg ak gëm la. jërë ngeen jëf. ngeen jëf. sëriñ bi léegi nee na sëñ bi nag léegi daf ko naa timis jot na. mu ne ko tey day Baay Faal la. nee na mu ne ko tey day Baay Faal la. jërë ngeen ngeen jëf. bis bii tey bisub Cheikh Ibra Fall la muy bisu sëñ Cheikh Fall jëm ndax sëñ seex jëm mooy Cheikh Ibra Fall man nag daa am lu ma waxoon damaa waxoon ne. ni ma gis seenub yëngu ak seenub liggéey parce que xaw am na lu ma jaxasoo yéen ndax lenn ci seen communication ci lu jëm ci li ngeen di liggéeyal Cheikh ra am na ci lool ci sama loxo bi la tege kon am na lu ma xam ci yéen lu mu gàtt gàtt waaye man ni ma jàngate seen mbir dama damaa gise ne sëñ Cheikh jëmb ci boppam moo tollu ci di wane produit am waaw li usine am liggéey daa tollu ci nag. maanaam di wane gën a échantillon beeg yooyu comme la daloon sëñ Touba ba muy yebal Cheikh Ibra Fall Ndar loola laay gis ci seen jëmm yéen dama ne la taxoon sëñ Touba yebal Cheikh Ibra Fall laay gis ci seen jëmm Seydina Omar ak mbooloo mi ànd ak yéen muy alali Cheikh Ibra ndax la taxoon loola mooy mooy booba murit bi njëkk. dem ndar di wane li sëriñ bi yor mooy Cheikh Ibra te booba ndar mooy première capitale senegal njaxasu nit ñëpp nekk ndar gouverneur Mourtani basam nekk ndar kilifa yu bari nekk ndar ndar di capitale bi Cheikh Ibra Fall Serigne defar ko ba mu mel ni am murit war a mel mu cëppeel ko ci biir ñooñu. loolee tey laa gise ne mooy seen jëmm yi tàmbale ci sëñ naa Omar mooy Serigne Cheikh jëmm day Cheikh Ibra tamat ko sëkk doon gi mu doon Cheikh Ibra Fall ko sëkk nag te Cheikh Ibra am lu mu batale woon ci jëmmam mu dikk confirmer loola muy dox ba jamono yegsi fii muy génn ak defaram nag di exposé di génn ak defaram di exposé ngir ñu mën a xam dëgg-dëgg lim lim am ci Cheikh Ibra loola xam sëriñ Cheikh jëmm dëgg dëgg dëgg xam mooy kan ci Cheikh Ibra Fall seen jëmm yi doy la ci seede moo tax ma wax ne yow daa am looy confirmer loo loolu la def yàlla indi yow daa am looy confirmer ndax ku la yéem yow ku yéem ku la yéem rek ku la yéem ku la yéem xelam dem ci sëñ Cheikh jëmm mooy kan yow ku yow koo jaaxal rek yow koo jaaxal rek si si sëñ Cheikh jëmm lay dem. ndax noo mel ak loo am ak ak looy jëf ak lu nit ñi yéem ci ni ngeen taxawoo sëñ Cheikh jëmm loola nit ñi man da loolu nit ñi dañ koo jéggi ña ngay dem ci waa jii fi nekk te Cheikh Rofal bàyyi ko fi mooy kan ndax bari na ñoo xam ne ci kuréel gi lañ bokk am na ñooñ xam nañ leen waaye dañuy toog ba mu yàgg ñu ne noo ale di Cheikh Rofal kan moo ne ci seen gannaaw man posé nañ ma question boobu ndax bi ngeen tàmbalee léegi Omar yàggul yéen fekk ngeen fi ku ne xam nañ lu bari waaye li ngeen di réagir ci jamono jii mais ana kan lañ mas a gis ko koy def ci kër xalifa ëllëri yi ngeen di daw jëm ci sëñ saa jëm mais kan ngeen teg seen bët te man nag fekkuma fi lu bari waaye mag ñi wax nañ ma de barke borom Touba lu ma la fi nettali ku Seex Ibra yar mbaa ku Seex Ibra yar bàyyi moo ma ko wax mais ma ne ëllëri yi ngeen di daw damay da moo tax li question bi ma la wax ñi nag du man rek lañ ko laaj ñu baree baree bari man nag la man nag la ma tontu leer na man man bañ ma laajee dama ne waaw am na ku ne ci seen gannaaw koy Cheikh Ibrahima ne ci seen gannaaw parce que borom Tuubaa loolu laa tontu. ba ma waaj ne ma ñii kan moo ne ci seen gannaaw dama ne am na dëgg la am na ku ne ci seen gannaaw mais Cheikh Ibrahima ne ci seen gannaaw waa ji ndax tey bu fekkoon ne. kay carnet bi tege na soxna Diagne Cissé wala kenn ci murit yi wala murit baawoo teg carnet bi di wax bi ngeen tàmbalee ba tey li ngeen jëfal Serigne Cheikh jëm ba ci koor gii bitse bi ni mu toll te ñu xam ci yéen ñu bare bare bare bari ne yoruñu ñaar dërëm du ay entreprise yu ngeen di liggéey du ngeen ay commerçant ñu ci bari ay élèves lañuy ñuy jàng mais yéen li ngeen di joxe fu mu jugee fu ngeen ko jëlee kon moo tax ma wax ne barke borom Touba sëñ Cheikh jëmm ah ah li nee na jógewul ci kudu sëñ Cheikh Jëmbu Fall man gamaa gëm ne produire sëñ Cheikh jëm mooy wone produire maanaam produire am li usine liggéey mooy gaa yaa ngi nii ñii la ñii lay loolu la daloon se dama ne diglul bu baax Omar ma nettali la xewoon te ndar Cheikh Ibra mi muy dem ndar booba hmm? waaw moo moo dafa garaaw ndax li xewoon ndar lay nettali ba pare waxaat la li xew ndar li xew ndar fii ñu toll fii ñu toog nii am na lu xew ndar am na lu doy waar lu xew ndar te ci seen loxo la yàlla jaarale danaa ko nettali waaye la xewoon ndar mooy sëriñ bi daa defar seex Ibra wàcce ko ca Daaru Salaam sëriñ Bassirou Fall alxuraan moo ma ko wax fukki fan ak juróom ñaar ci weeru gàmmu bàyyi si xaw ball mii xam na li may wax de bis boobee ay ay bis boobee xam na li xew de bis boobee ndax man xam naa ne xam na dara ndax daanaa waxtaan ak bàyyi aadama ñang wakkaan naqam ca poroxaan waaye fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu yooyu mu ko wàcce yabal ko ndar booba nag bokkut ak weneen yoon wi nga xam ne Cheikh Ibra dem na ndar ndax Cheikh Ibra ñaari yoon la dem ndar moo tax ngërëm yi léeg nga gis kuy kuy nettali di nettali ngërëm la ca 1890 ca Touba ak juróom ak ñeenti ñeenti daara yooyee waaye duñu xam ne ndekete Cheikh ba Fall ku bëri ngërëm la ndax ngërëm li mu ko wàcce ci Daaru Salaam bokkut ak koroog bi sëñ Baara ñëwee jamono ñaari yoon la ëpp na ko sax nag waaye ñaar daal la ngi noonu moom waaye lii ma leen di wax nag moom Daaru Salaam la ko wàccee boole ko maam seex Anta ne ko dénkal ma ko askamara bàyyi Abdou ña ma ko maam Cheikh Ibrahima Fall ànd ak boroom gaawaan ñëw Daaru Salaam ñu ñëw Ndar biñ dikkee Ndar fa ñuy wax sindoon yi ku xam Ndar miin Ndar xam nga ville bi fa lañ dal fa la fekk maam As Kamara mu am fa këram mu dal mu dal ak moom. Cheikh Ibrahima Fall yàgg na fa lool ab diir maam As na ko génnal Ndar ñu séqi dex gi ndax maa yow xaj ñu biir Ndar Cheikh Ibrahima dem gen Gendar dem Gendar bi mu dikkee Gendar fa la daal di sanc këram ñu koy wax école Sékou Touré tey mooy tey. man dem naa fa léegi ecole la fa nekk daan nañ fa dal sax ay jamono ci ñaar rakk yi mais école Cheikhou Touré gi ki gendar mu doon kër maam Cheikh Ibrahima Fall fa la Serigne Fallou fal ganee jamono dooy maam Fat fal Wadda fala la Serigne Ibrahima ganee jamono dooy maam Fat Fall Wadda fa la son roqee Fall ganee jamono dooy maam Fat fal Wadda seen ndey mu ngi dëkk ci gannaaw yu ki ñuy wax yirim ba ñu Wadda ko jur ak Asta Ndiaye Njare ca gendar xam naa seen i bokk loolo ma nga xewee ca ndar gendar googee la ko dalee ci caaka Ndiaye jàpp armée li ceem yooyee foofu yëpp loo par loo la Cheikh Ibrahima daa jënd këram la woon ba fii may wax ak yéen barke borom Touba kër gi ñu jëndal sëñ Touba Ndar te moo li jënd ko ca Gendar étage boobee ñu tabax léegi ñu jënd ko sëñ Jili Mbàkkeem sëñ Bay Mbàkke jaaxal moo ma ne keroog bi ñu demee defar këyit yi turu Cheikh Rafal lañ ci fekk turu Cheikh Ibrahima lañ ci fekk jërëjëf <laughs> Baye Fall maam seeni Ndiaye sama rama waaw maa ngi koy siyaar baa mu sëñ mu dab laay waaw moom ci moom laa bokk <laughs> moo tax li may li ma leen di nettali mooy bi nga xam ne Cheikh Ibra ñëw na Ndar te la tax mu ñëw Ndar mooy booba li sëñ yor la doon wane mooy li leen dal ci sëñ Cheikh jëmm rek képp mooy mu toog Mbàkke demul fenn lépp yi dox Cheikh Ibra batale woon ko wax ci moom ay wax danaa ci dikk ngeen dem ba jamono ji ngeen dikk nag na tey kii toog ci Mbàkke lim toogaale te Cheikh Ibra defal ko ko ñun ñi ñun dañoo dañ yéen da ngeen a jënd yéen dawaa dangeen a jënd fii lu fiy maye amu fi fii luñ fiy dénkaane amu fi Cheikh Rafal ne ku ñaan ñàkk boo jëndee am waaye tey jii wallaay lancim ne ku leen xam yéen xam sëñ Cheikh Jëmm mooy kan ku umpale ku umpale sëñ Cheikh mu ne mooy Cheikh Rafal yow yow yow dox yow jaxasoo alali Cheikh Rafal gëstuwoo leen waaye bu leen gëstoo dóor gis ñii dóor muy daanu teg genn kër gu ma xam nga ko man amul dama la Omar boobu ma fenn de li ngeen di def man maa yor communication xam naa li xew mais man gisuma ko fenn gisuma ko fenn yoon wi sosu na lu yàgg may door a ñëw waaye li ma fi fekk ma ko amul ci ay weer yu néew mbaar mu toll nee ngeen dóor ko mu daanu dem ca keesu soxna yi juga te bu leen sëñ bi arrêté wutoon ci koor gi leneen yeneen xew ndog yi yii kumte bu jot million bi tege ci ak yeneen ak yeneen dund bi kër sëñ bi lone ngeen koy def loo xam mën na su ko nettali te te xam nañ ne waajee parce que moo taxaw ngir wone produit am li liggéey la génne li isunam liggéey hmm? kon la daloon Cheikh Ibra Fall ca Ndar moo feeñ ci seen jëmm yi ndax maam Cheikh Ibrahima Fall kor bi muy ñëw Ndar fekk na fa maam El Hadj Malick si mu dëkk Looda maa fa teg sama tànk man ca zaawiye ba fekk na fa maam Njaaxa Siise moo jur Basiiru Siise moom mu sëñ Tuubaa di nettali taarixam li ma wax bàyyi xam na ko moom fekk na sëñ Mor Masamba Jéeri Jeng jeex na tàkk maam Njaaxa Siise fekk na fa sëñ Mor Masamba Jéeri Jeng fekk na fa maam askamara fekk na fa Alaaji Amet Njaay Maabey mu xaddam bu baax la woon fekk na fa Amet Sekk ma jaara ñii ñëpp ma leen di wax Cheikh Ibra Ndar la leen fekk waaye bi yàlla dogalee nag Cheikh Ibra ñëw dëkk ci seen biir jaxasook ñoom fekk fa sëñ mu saxeer Mbay mu ñëw jaxasook ñoom dëkk ci seen biir dëkk ak ñoom di jëflanteeg ñoom nga xam ne Cheikh Ibra am na ab diir ndar sëñ Touba door a sëñ bi jóge na fa ab diir Cheikh Ibra door faa génn kon Cheikh Ibra ko jiitu ndar moo ko mujj ndar waaye niñ génnee sëñ Touba ndar noonu lañ ko génnee ndar ndax li tax ñu génne ko histoire la maam Cheikh sëriñ bi fekk na ko ndar ba génnaat ndar bàyyi ko ndar Cheikh Ibra moo tax waa Ndar ñu war a xam Cheikh Ibra lañ lu ne Cheikh Ibra Fall won na ko waa Ndar lu ne ndax bi muy dem di sanc ci tasineer gànjul booba tubaab yi ko génne tasineer googee man fala sama maam di jur sama baay ganee jamono ci ay 1880 80 96 97 muy Baye Cheikh Ndaw ndax maam Babacar Ndaw moo fa fekke woon maam Cheikh Ibrahima Fall tasineer googee ñi njëkk tuddee maam Cheikh Ibrahima Fall fa lañ gënee jamono bàyyi Cheikh a ci mag ka ca topp maam Cheikh Diop Cheikh Diop la mooy taw Cheikh Atoumane Diop te at moomee lañ gënee jamono ca tasineer ndax seeni bàyyi booba ñaar fukk ñaar ñoo mës ñoo dé koo dégg ci mag ñi nag Seydina Omar ñu koy tudd ndar di tudd Cheikh Ibra ca mag nga la bokk ndax bi ko sëñ Tuubaa wàccee dafa dem ndar kon ku ko fekk rek ci mag ñi njëkk jox seen bopp nga bokk moo tax bi ko sëñ Tuubaa joxee ndigal nag moom Cheikh Ibra mooy tasanteeg tubaab yi nag daal di koy ndax sëñ bi daf ko ne boo demee ndar deel dox bëccëg yi tey doy dox guddi yi noppalu bëccëg bu Cheikh Ibra Fall doxantu di jëm tasineer bu dikkee diggante ndóob ak gànjool ak ñaay dafa daa doxantu ba fa la tege bët fa la njëkk a gis a Cheikh Babacar Lo ci atum 1890 Cheikh Rafal dem Gànjool sëñ Bay la jox ko boppam sëñ Modou Ndiaye ñaay gis ko ca ñaay ci atum 1891 gannaaw bi sëñ Bay Mbay loo jébbaloo mu jox ko boppam. bañ joxee seen bopp te ñuy muxaddam yu mag ca dëkk ba di jàngalekat di yëlimaani dëkk ba coow la bëri Gànjool ba coow la bëree maam Cheikh toxal leen Cees ci atum 1892 ñaari at lañ def ak moom foofu mu tuxal leen. ma moo tax Cheikh Babacar Lo bi mu dikkee Thiès sëñ maam Ahmadou Baro Njëgeñ la dalal moo ko dalal ci wetu këram ba mu ko dalalee ci këram Cheikh Rafal bàyyi ko na Ganjool gane si ko fa Ndar fere Thiès ñaari yoon bu ci nekk da koy gane dellu ñëwaat ba mu delluwaatee ci yoonu mujj wi ca ca la ne ko nag ma wutal barab ci Thiès ba maam Cheikh demee yónni Baye Ibrahima kan mu jur Baye seex kan bi dëkk Njaarim jox ko gaalu xaalis ne ko nañ ma jëndali ko dalee Madina Fall ba Fànn bañ demee jënd la des ca xaalis bu ñu ko indee Seera Fall na doyul dem leen dolli ñu del dellusiwaat mun a des na de daan ngeen ko soxla soxla ji ëllëg ndax yëngu gàng ca xël ga xël ga ndekete xël ga ca kanam ca kolos ba la fa Seex Ibra doon bañ daf bëggul ñu ëmbaale ko tey Madina Fall démarche di jot affaire ba sonné te bu buñ déggoon Seex Ibra du tax Seex Ibra Fall nag bi mu ñëwee kër gi mu njëkk am mooy ci wetu raay bi waaye maam Cheikh ne Baye Cheikh Baye Thierno Sall maa gis ci waxtaanu Baye Thierno Sall mu ne Cheikh Rafal ne kër gu jëlëg lu ab raay Cees laa ko njëkk ame te la ma ca daj ba raay bu jóge fa dama ko wax kenn ndax Baye Thierno Sall nee na Cheikh Rafal ne raay mooy rëddu Iblis Baye Thierno teg ca ne raay ba topp na topp na ko ba bëri ko wax Baye Thierno daana bi topp na ko ba bëri xol waaw léegi moom mbir la léegi nag Cheikh Ibra dal ndar ci ndigalal ku tedd gi di dugg gànjool di bay di njëllu si ndar moo tax am na gouverneur am na ku naan wax carpo Cheikh Ibra financé campagne am ca ndar la tax mu def koy mooy am autorisation bu dellu sëñ Touba ci réew mi bi sëñ bi demee Gabon sëñ Moustapha Saliou moom ko nettali mag Alioune Badara boobu sëñ Cheikh Ngounda ñu yónni ci moom dama ko fàtte mukk ay 23 heures ci guddi booba mag ñi nettali ba di àgg si ci ñaar ña seex Rafal doon campagne loo ma ne ko ku ñu wax Mor Fall Fëri ak Mor Fall Debbo mu ne waaw góor jàpp nga seen tur mu ne ma Mor Fall nag ku ñu wax général Fall te nekkoon njëriñ maamam lay doon wala baayam mu ne moom moomee nag la nekkaloon moo koy campagne de ba mu gañee mairie ba ci la indi dossier yu ko xamal ne ku te ku baax kaa ngi Gabon nga xam ne autorisation bi dina jële sëñ Tuubaa indi koon Sénégal Cheikh Ibra Fall la ko signé ba ko jëlee gànnaar itam indi ko Sénégal Cheikh Ibra ko signé boobu moom gaaya la ko yóbbul gaaya moo def ñaar yëpp te Cheikh Ibra itam nag digganteem ak ku tedd ki te ba mu koy wër te ba mu koy wër nag laa la wax ba mu koy wër wax naa ko bàyyi saxkan léegi nee naa ko sa dëkku maam la Cheikh Ibra njëkkee ba mu wër ku tedd ki te toogu fa itam nag toogu fa de ndax sëñ bi la doon wër ba mu làmbee ba xam ne lam fa doon gis du sëñ bi daa jàll waaw daa jàll toogu fa fenn fu mu toog fu dut Mbàkke Kajoor amul fu ci nekk dafaa jaar làmb nag dëj lam doon daj du moom fekk na fa fu ne nag fekk na fa ku baax fu seexam rek teg tànkam rek wàllu yu la fa fekk waaye lam doon wër la gisul sañu ta jàll seexam rek daa jàll ndax ba mu déparé njare moom siin lay kan la njëkkee lam doon seen siin lay kan ba jàpp na moo am Ahmadou Bamba yi du jëmm juy dund Cheikh Ibra nee na bi mu defee listixaaram ci këram mu sànni ko nee listixaar ga ci armeel la ko sànni armeel ya bi mu demee siin lay kan jugut ci kër ci armeel la njëkkee ba mu demee ci armeel def fa listixaar fanaan ko ba bët set li mu doon seet ci la dem ci kër gi waxtaan ku ñu wax sëñ Mourou Maram Kan bay Mourou Maram Kan ne ko li nga doon seet da nga koo gisuta mu ne ko déedéet li ma ko tegoon ne moom la du moom làmb naa ko du moom ndax maam seex ne bi mu fanaan ne siin lay kan mboolem nitu yàlla yi nee na guddi gu jot sa borom réemale seeni daraja nee na waaye du gis kenn ku ko ci sut la sutu du la mën a waaye Cheikh Ibra Fall nee na siin lay kan lañ ko wax yoo ne ko ki ngay seet bu doonub dëkk bor na baa ngi badar badar bii moo tax ba mu xëyee ba waxtaan ak sëñ Mourou Maram kan ne ko teemaa dem gànnaar seet ko ci ñu weex ñi ba xam wala ma dem ci dëkk bii ñuy wax badar te la daal di jox waxee na ko kon mën ngaa dem badar bi mu egsee badar géey ku ñu wax sëñ Mayib Géey la fekk mu julli ca jàkka ja mu dabe ko benn rakk Cheikh Ibra Fall dab ko li ma la wax ni laaj ko waa badar ku mel ne day Saliou Guèye badar gars yi ñoom laaj leen ko rek xam nañ ci dara bi mu dikkee sëñ Mayib ba ko dalal biñ bokkee ànd ci julli gi ba noppi bañ sërmal ñu bokk waxtaan ci pénc mi Cheikh Ibra gaaral ko li ko tax a jóg sëñ may wax ko ca lañ ne nee na ca la ko xamal ne ko lii taxumaa jóg lu am solo lu baax la waaye taxumaa jóg nee na maam Cheikh Ibrahima Fall nag daan ko dama bëgg a jàll sëñ mayib na ko tee ngaa fanaan boo xëyee yegg la sa wër Cheikh Ibrahima nee na bi mu fanaanee nee def li si xaaram ci leen ko xamal ne ko ki ngay seet boo ci bëggee xam dara dama tey ba Dakar maam Cheikh bi mu déparé Badar Gueye tey ba Dakar la dem lii mooy xam ci biir lii ma lay wax nii booba Cheikh Ibra Fall ngi am vingt 27 ans ñaar fukk ak juróom-ñaar booba itam Cheikh Ibra Fall ngi bàyyi koo Njarawaat fala ndeyam dëkkoon bàyyam génn àddina ñu dañ ko ci géntub kër saar yi barab baa nga fa ban man ñii ci ñu doon yor communication liggéey bi ci laa bokk ba ni mu yeggee waaw jëmm jii fi ñëw léegi bàyyam moo doon liggéey garab barab ba soxna Rama sëñ Mourad lay Fall ndax Sidi Diop ko doon liggéey ci Allemagne xam naa ci dara waaye Cheikh Ibra comme njare la gane jamono ci liñ mag ñi wax kër Saali la gane jamono nee nañ ci 1855 maam Saali gane jamono wàq ñaari dëkk yi di séenante bàyyam génn àddina ci ndawam ñu denc ko fa soxnaam ndayam liggéey ba noppi la ñuy wax muuru muy maam Seyni bu Njaay càmmiñam ka ñuy wax Njaay faat ma nañ ko wutal fu mu àggale ab liggéeyam ñu jël ko yóbbu ko belal Jóob kër maam Issa Alima Jóob foofu moom Cheikh Rafa maam sa maam Seyni war na wàcc war na wàcc waaye wax nañ ne bu dee ci maam ahmadou faa roqee moom jottoon a dem kër moom léppam njare la ko defoon ndax maam ahmadou faa roqee moo dëkk si woon njare moo jugee nja moo jugee njabi faal ñëw dëkk si njare ndax roqee njaay mi jur ahmadou roqee ak seyni bu njaay mii ndey seera bokk mel na maam kon seex ibra kër ndayam muy kër baayam moo tax te itam nag maamam daa yoroon daara di jàngale muy balla faa géey mi jur maam seyni bu njaay daa yoroon daara di jàngale te njare seera faal jàng fa alquran ba xam li mu war a xam dem dëkk ba ñuy wax warak yeggalee fa lu bari dir siwaat saa bu tëddaan nag sëñ ku tedd ki nag di ko feeñu di ko feeñu di ko feeñu nag ba yàlla dogal digg ba jot mu dem wëri ko waaye keroog bi yàlla dogalee ba bàyyam génn àddina bañ jël ndeyam jox ko maam Isaa Alima jóob ca Belel Diop am na fa doom bu jigéen bu jox maam astu Diop mooy caatum maam Seydi bu Njaay kookoo Cheikh Ibra Fall ñoo bokk ndey waaye bokkuñu bàyyi moom bàyyi Isaa Alima Diop la tudd Belel Diop la dëkk maam Astou Diop moomee ba matee dem kër sëñ Daaru Asan Njaay lañ ko am na ci ku ñuy wax sëñ Ousmane Njaay sëñ Mot Njaay sëñ Ibra Assou Ndiaye sëñ Abdourahim Rahim Ndiaye loo soxla bu sa njaay soxna bu sa njaay ba matee dem kër ka ñuy wax sëñ Balla Coro lañ ko dégg rakki sëñ Touba mu taaloo ku ñu wax sëñ Abdou Mbacke Mbar teg ci Bay Mbacke jaaxal hmm? loolu moom da comme ni kilifa yaa ngi toog ñëpp a ngi toog te te te dama bëgg rek loo xam lu ñu yóbbu mu wóor mu leer loolu moo tax sax ma jaar ci yoon wii waaye maa ngi woon Ndar ndax ndar la ma fa bëgg nettali mooy li nga xam ne ba ba ko ba ko Seex Ibra Faal bi maanaam Seex radu du nit xam nga mbiram maam Seex mbiram gis nga lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg mu dellusiwaat ci loxoom barke borom Touba lim moom lu mu yàgg yàgg yàgg mu dellusiwaat ci loxoom ndax tey jii la Seex Ibra def ndar lépp mësuma faa xam kër Seex Ibra ndar fii may waxee yow nii xam naa kër yu mu amoon xam naa titre foncier yu mu amoon ndar waaye comme njaboot gi moom mosuñoo topp dara ndax li tax mosuñoo topp dara mooy Cheikh Ibra lu mas a jënd sëñ Tuubaa la ko jëndal lu mas a wut sëñ Tuubaa la ko wutal kon sëriñ bi du dem ñuy topp ay titre foncier ki ay kër duñ ko def bu doon looloo ñu topp palais ba tàmbalee ko ca Lambinaas ëmb avenue Roma place de l'Indépendance plus de 4 kilomètres Cheikh Ibra ko moomoon te kenn gisu fa benn bàyyi fa bu fa yor immeuble mbaa bu fay fay ko par weer ba muy doon kër Cheikh Ibra Fall ko ba tey Ibra Fall Barama Sall yoroon fi lenn place Lenab ma nga tàmbalee ma ne hôpital principal la sës ëmb avenue Roume ñëw ba place de l'indépendance koro bi may waxtaan 2STV bi laa leen ne njort naa ne sax fii ngeen ñu toog di wax ci suufu Serafal la bokk ndax plus de 4 kilomètres la boo ko tàllalee egg si na 2STV kon te Cheikh Ibrahima mu ndax xamalu waral loolu man mag ñi ñëw ma déy te woon ma ma gis lu ma dul wax ci jotaay am naa lu ma leer ci ne maam Cheikh jëndatoon suuf yi ngir ndonu mbaa mu ko fa bàyyil ndonu xamalu taxoon mu jënd ko gardé ko réew mi réew ko doon gardé barke borom Touba Omar Cheikh Ibrahima Fall Sénégal ko fay borom Cheikh Ibra Sénégal mënu ko fay borom suuf su bari da koo jëndoon pour garder ko réew mi ndax sëñ Cheikh Fall Baye Góor nee na maag sëñ Mourou Aminta taxaw am ku ñu woo nañu kaay leen wuy seen baay sëñ Mourou Moussa Fall ñu dikk mën a woowu ma leen seen maama leen woow ma nga Madina Fall Thiès mais biñ dikkee ñu fekk maam Cheikh gas ñaari kàmb di tibb suuf si di sotti fii di maasale di tibb suuf si di sotti fii naan sama suuf si lay denc damay bañ ñu sàcc ko daan leen xanaa xamul réewum Sénégal ca kanam sàcc ko suuf donga fii dëkk loolu la Cheikh Ibra teeloon a gis mu doon rawaleer suuf su bari ngir bañ ñu jaay ko tubaab bi wala ñu sànk mu de ko rawale loolu moo waral mu doon occupé yu baree baree baree bëri yoo xam ne tey bi mu demee ba gis na Sénégal mën na koo jëlaat jëriñoo ko daaru bay rek mais 1026 hectares la 1026 hectares moo tax waa monsieur le maire Talla Sylla ci gàmmu Thiès gi laa ko fekk sëñ Mbacke Fall présidence mu ne ko taxawal ma laaj la daaru bay rek 1026 hectares la mun naa mu ne ko Cheikh Rafa la ko jëndoon. ko day dàq tefes xam nga lu Baye Ibrahima wax nee la ca Cheikh Rafal jublu mooy xam na ne tubaab yi ñuy wàcc sëñ Tuubaa fenn mu tumbarake fu mu te am na firnde ci ne ñaari kër yi moom la taxoon maam Cheikh Ibrahima Fall jënd ko moom am na ca ndam mooy sëñ Tuubaa wàcc na fa benn mooy Ndakaaru sëñ bi wàcc na ci pale bi la menace waaw sëñ Moussa Ka ne leen bis boobee mu yi meg nañ mbig ta wax na France bi ci des mooy ngumba ngumba Cheikh Rafal nee na keroog Baye Ibrahima Thiam nee na keroog ba sëñ Tuubaa wàccee ngumba man mi la Seex Ibra jox caabi kër ga maa ko ubbil ko tedd ki jërëjëf silla silla maa ngi leen di siyaar baax sëñ ma sayer silla moo tax maam Cheikh Ibrahima faal baay bu murid loo tax mu daan dàkk tefes mbaa gaar moo tax boo demee Gendar tey kër gaa ngi ci tefes gi géej gi la sës tey jii mairie Mbàkke bii nga gis nii Cheikh Ibrahima Fall la ko moomoon Cheikh Ndiaye ma ngi ni too moo ma nettali ci làmb ñam na ma teen bee fa ci biir Cheikh ko fa gasoon tey Abdou Mbacke Ndaw moo ma ne teen bi damaa fekkoon ñu sakk ko waaye sécurité naa ko maa ngi koy defar bu àggee danaa woo sëñ Cheikh Jëmb ak délégation Baye Fall ñoo inauguré teen bi teenu Cheikh Rafal la woon moo ko kasoon mi ngi ci biir mairie Mbacke kër Cheikh Ibra la woon boo demee Kébémer rek foo ci dem kër Cheikh Ibra Fall fu ci baree baree baree bari Cheikh Ibra ko moomoon ba fii may waxee yéen sax Cheikh Ibra ëpp suuf ci Touba waaw Touba gi moo fi ëpp suuf tey aéroport yii bu ñu ko doon xalaat tey ci suuf Seera Fall dong la xaj muy lu jëm ci sow bi Jébbu Fall ay Daaru Fall ay Touba Fall ay Kawsara fii rek la xaj bi xam ngeen li xew sax boo rombee Baye Fall nga Daaru fal ngay jot kese yëpp du sàkkoor dem Touba Fall sëñ Mourou Moussa Fall dem Jébbu sëñ Aliou Fall Mboor ñem njax sëñ Mbàkke xarit Jóob ak sëñ Mourou Mbenda foofu rek la xaj bi Cheikh Ibra fi ëpp suuf côté boobu kay lam fa am kenn amu ko fa moom kenn kenn amu ko fa fii ngay dox lu bare bare bari te doo génne daara Cheikh Ibra Fall fii sow bi kon Cheikh Ibra xam na li xew loolee nag dañ caa war a xam moo tax ndar nag ndar kon la fa Cheikh Ibra Fall def ak lam fa am tey jii yi Cheikh Ibra Fall jii nii delloowaat nañ Cheikh Ibra alalam barke borom Touba xam ngeen nuñ def wutal sëñ Cheikh Jëmmu Fall kër ndar ñu ngi nii kër Cheikh Ibra Fall di kër sëñ Cheikh Jëmmu ñoom ñii ñoo ko wutal sëñ Cheikh Jëmmu ndar këyit yaa ngeeg ñoom te ndar Cheikh Ibra Fall gis na fa Cheikh Abdou laa Jelaani maam Cheikh ne bëri na nitu yàlla yoo xam ne tey seeni bunta ngi ndar yéen xam ngeen li xew man kay ku leen connecté laa bëgg a xam kan la waaye loolu sax jaratul laaj sëñ Cheikh jëmm la rek loolu question yooyu sax jaratul laaj daal du kenn jaratul laaj question yooyu sax jaratul laaj loolu yooyu sax ay laaju dof la fàllay loolu ay laaju dof la xoolal ndar Baye Ibrahima Thiam nee dañoo ànd ak seex Ibra Fall ne di dox mu mu dem ba jub aw xeer aw xeer ne bu masaan di dox nag ci ndar lu masat romb luy xatal yoon wi da koy àndale maam Cheikh daana dox ci ndar ba gis mbalit mbalit mu bari jël taam leeñ ko lépp na àddi sëñ Bamba boobu mu ngi waajal sëñ bi ñëw sëñ bi ak yooyu mbedd mën daaw tilim Cheikh Rafa romb ko ndar bàyyi ko noonu nee xeer wi comme lu mas a gis nag bu ko bu ko da koy àndale yoon wi bu mu ne bu mu ne jikkit xeer wi nekk te buntu la mu dawal bëtam mu sar mu mu jàkkalu Cheikh Abdou Khadre Jeylaani ne bi ma ne yëkkit xeer wi daf na laa ilaaha illallaah tegaat xeer wi daal di gestu ne ma Ibrahima ma ne Fall mu ne ma xam nga lu ma gis mu ne ko dee mu ne ma Cheikh Abdou Khadi Jilani laa gis ci juróom-ñaari bi suuf dama ne yëkkat xëy mu ne ma kokkan na ma ne ko mën na Ibra ma ndax yow mal xiyam daa ne ko dee mu ne ma ndar la xewe waa kay mu sëñ Njaga Diop kéemaan la de nee ma ma fi muy woote day confirmer moom day confirmer ne ko daa am fu ma toll muy woote moom day confirmer waaw moo pare dinaa ko woo sëñ Moustapha Diop mooy taawu sëñ Ndiaga Diop Baye Fall. léegi Cheikh Ibra Fall loolu la def ndar muy dëkk boo xam ne ni ko Cheikh Ibra xame kéemaan la ndax ñaar fukk ak benn yim njëkk a defar seexal leen foofee la takkee ñoom ànd di ñëw daaru mar naan di siyaar sëñ boobu la sëñ Tuubaa jóge jugee maanaam Gabon 11 novembre 1902 def kiyam ba ñëw daaru marnaan pour waajal yoonu gànnaar wa hmm? waaw suñu seex jëm waaw moo tax <coughs> daaru marnaan googee sax am na fa lu doy waar lu fa xew loo xam ne Cheikh Ibra yàgg naa jot tuuma tuuma doon ca ndar dong na yem ca parce que baatub lii lépp yow faal léegi la doon aw tagg waaye bu ko mësaan digg danaan ndekete aw xas dana mujj doon aw tagg waaw Cheikh Ibra Fall mooy baatub lii lépp yow faal te loola sabab si mooy bi sëñ Touba demee ci géej gi bi sëñ Touba demee ci géej gi ñu topp ko ne ko lii lépp yow yaa na ko teg ndax topp nga ko jay koo jaye jay ba tubaab bi jàpp tubaab ku jàpp doo dellu si léegi nag ñàkk nga ko ñàkk nañ ko Ibra Fall tee nga dellu say bokk Cheikh Ibra nee ma muñ rek mais bi sëñ Touba demee ba ñibbisi ba dem ci géej gi dem fu ne nee na dikk ñu ne ma lii lépp yow ba ba ni sëñ Touba di waajewaat 1903 pour dem gànnaar boo xoolee sax daanaka dafa xaw a nuruwaat tuuma ci lal ya maam Cheikh Anta ak Cheikh doon jëndi sëf ko ci ay sareet bañ làmb ko na ay fital la loolee tax na yi tuuma yi toppaat Cheikh Rafal na ko lu ko dal yàq ko teg waaye ba Rafal nee na bi sëñ Touba ñibbisee nag nee na ba njaarim xumb bis ma dégg ko sikkar bana ma lii lépp yow a faal mën a ah, ndekete yàlla nii la mel aw xas dina mujj doon aw tagga moo tax lii lépp yow aw xas la woon waaye léegi seera faal ne aw tàgg la moo tax am na moo tax njàmbaas njàmbaas yi ñuy def ci sikkar si mënut a ñàkk ci sikkar léeg-léeg ngay sikkar ma yàgg nga njàmbaas am na ku ne ma bàyyam ne na ko mas nañuy sikkar fi njëriñ ba yàgg am ku ne ralit na seera faal sañ nga ñoo jàpp jaay mbaa nga yeew ñu sax di ñu maye seera na gis ne hee <laughs> doom ah wax na dëgg de damaa liggéeyal asgor ba mu fayee ma moo tax nag maam Cheikh moom naka jekk mënta ñàkk ci yooyee nga daa dégg waaye nag loolu lépp nag la ko ca ëppal solo mooy ku jariñ Sëriñ Tuubaa moo la dimbali moom lu mën a dégg moom dana fexe ba nit ñi jariñu ndax tey koo xam ne yaa dimbali mbaaxaan yaa dimbali Ablaye Xaar yaa dimbali ñoxam Mboré Mangara yaa dimbali Mbaar Dior Siga te lii ma lay wax nii bu ma ko waxtu yu mayoon dama bëgg ñëw nag ci sëñ Seex jëmm moo tax du ma du ma du ma mën a dugg ci côté boobee waaye kon moo wax la ku ci nekk fa Seex Ibra jaar moom am na ku ma fi nuyoon léegi. ci waa kër Serigne Cheikh jëmm yi njukki la bàyyi ko fa la dëkk kooko xam na li xew ndax njukki moom mbaar jun siga fa dëkkoon te mbaar moom Cheikh Ibra soppi na turam ci njukki na ko Ibra Fall la tudd ndax mbaar bu ngelawee mu naaw bu teye mu senn tey firnde li mooy jox na ko ak njabootam njabootam googu dëkkoon na leen ba am ci ak njaboot kon mbaar nangu na ak lu mu am ndax Moussa Fall mbaar ak Ndonga Fall mbaar ak Soxna Fall mbaar yépp ci njabootam lañ bokk te ku ne xam na ne ñoom Moussa Fall Mbar Ndonga Fall Mbar ci Cheikh Ibrahima nekkoon soxna Fall Mbar yi Cheikh Ibrahima ko dëkkoon doomi Mbar Dior Siga am ca soxna Assou Fall Mbar jël ko jox jox ko sëñ Basiru mu taaloo sëñ Cheikh ak soxna Xadi Basiru kon loolu firnde leen bu dee Lat Joor itam ku ne xam na ne eh, maanaam Kumba Cele Maan Jóob Cheikh Ibrahima dencoon na ko doomi Lat Joor mbaaxaan ak Ablaye Xaarit Cheikh Ibrahima tax ñu doon yi murit loolu moom ñëpp xam nañ ko ndax ndax barab mbaa Ablaye Xaar ngi jàkkaarloog barabu Cheikh Ibrahima man saa bu ñuy durus ci samedi sax barab Ablaye Xaar lay wéeru loolu day wane ne ñoom nangu nañ ndax am Abdou Khafour moom sëñ Tuubaa ko ko tuddee te Cheikh Rafa la tax ndax keroog ba muy ñëw di di tuub si te la xewoon ci démb mba mbaaxaan yaa ngi maa ngi yàllaa ngi yonent baa ngi seede yaa ngi loolee sëñ bi do koo xam ne sëñ Omar 30 ans la am di joxat bi sëñ bi mag ñëpp na day àll ñëpp na mbaaxaan dana àll ko tey mujj doon seexu Baay Fall ñëpp xam barki borom Touba sëñ Thierno Mbacke gelongal moo ma ne ñaari yoon nuyu naa ko sëñ Mourou Moustapha Fall yoo xam kon koo xam ne 30 ans nga am di jox bi sëñ bi ba ñëpp ne da nga àll nga mujj doon seexu Baay Faal Seex Ibra ko dimbali tey la bu fekkonte ni bi tey ba ko Seex Ibra dimbali itam maanaam ba muy ñëw ngir ci tuub si bu fekkonte ni bii tey yemut ci Seex Ibra Faal mën naa am lu bëggoon doo am ndax ku am ku xam histoire xam ne ba mu dikkee daaru mar naan gars yi tëju nañ ko ba mu ñëwee njaare mu mas a fekk fu mu mas a ba muy tuub si fu mu mas a ñëw fekk fa sëñ bi gars yi tëju nañ ko na ko doo àgg am na ci koo xam ne nee na mag ñi ay yat lañ fa di fàttaliku la woon ci démb waaye bañ ko xelal ne ko demal jaare ci Cheikh Ibra Fall ndax boo fa jaaree li nga bëgg di ko am wax nañ ne keroog bi yàlla dogalee mu ñëw fi maam Cheikh keroog bi yàlla dogalee mu ñëw fi maam Cheikh maam Cheikh a ngàbb ci loxoom bi mu dikkee ci sëñ bi mo Cheikh Ibra na ko nuyool mu nuyoo Cheikh ko kalaame kuñ jàpp ku ne dañ laa kalaame moo ko ne Mbàkke dimbalil mbaaxaan ñaari baat képp la xam nga Cheikh Ibra daa xam sëñ bi moom ñaari baat képp la ko daf ko am na firaw naag mbaaxaan mi yégu ci te yaa gën Moussa hmm? waaw moo tax loolu la ko wax sëñ Cheikh yaa ngi dégg def ko ne Mbàkke dimbalil mbaaxaan ndax firaaw naa bonam nga mbaaxaan mi yëggu ci te yaa gën Moussa léegi nag kii waral coow li mooy sëñ Cheikh jëmm waaw kooko waral waaw moo waral yëf yi kooku la Cheikh Ibra waxoon waaw <laughs> waaw waaw kay Touré yàlla nga am sa barkeb moom Cheikh Abdou Karim moom ma waxoon ne mboolem ku nekkoon ci toolu Sëñ Tuubaa di ko liggéeyal Seera Fall la defoon muy royukaayam sëñ Cheikh jëmm nag Cheikh Ibrahima ko joxoñ waaw Baye Abdou Niang moo ma ne almasa kurus Cheikh Ibrahima toog fi njëriñ jekki-jekki làmb kurus yëkkati na lii lu mu doom mag ñi ne cell Cheikh bi naa ah, doom téye a wax ñu ne kurus mu ne waaw kay ab laax buñ ko ràccee ne xiif te borom laax ba tërëwul te nga xiif la yàgg ci raxasu te yépp su ñuy laaj te li ñuy laaj araamul doom te nga xam loo yeexa tontu lii de mu ngeen a cell mag ñu ne kurus mu ne lu mu baaxoo doon ci blim nee na am ku ne téeméer keneen ca wet nga ne téeméer keneen na téeméer Cheikh Ibrahima ne mbaalan am ku ne juróom-ñeent ko juróom-ñeent mun a ah, doom lu ci gën a wér mag ñi téeméer maam seex na boo koy wér ba jot per bu xaar te taqalul ak per yi mi ngi ci nas bi doom bul ko jënd boo ko jëndee maam seex nee boo yeggalee sëb lim manqué boobu mi ngi wax gannaaw daana su ma fu jugee doom bu la ma jubkat Cheikh Ibrahima wax de bu leen ma jéggat bu leen ma jeexaat bu leen ma càmbar ku toog ci sama sées bii di man bu leen ma ko xeebal doom lu manqué moom Serigne Fall ne dana dugg ci bureau mottali am ku ne ah mun a gees naa doom ku xajji ku xajji doom ma baar ak Fall may alalam na ko Modou Gueye maaroo Cheikh bi nag ah yaa ne ah mu ne ko waaw ah, mu ne ko lu tax mun ne ko topp sil doom lu tax nga ne ah mu ne ko bu def dofa nag bu def dofa ki la fi toogal ëllëg bu def dofa nag Cheikh bi nag ah doom dofoo tëréeroo ab dox suñ koy dóor nga koy atta looy wax bàyyi mu gay maaro na ko xanaa ba faal bul ko gaañ dofub di wax mun a booy saab dof man Ibra Faal ma jóge fi mu toogal ma ci saab seet say ba daanu fi suuf jëlaat leen ba mu set sang ba mu set tegaat ci kaw siis bi ndeem toogal na ma fi maam Cheikh nee na su laaj jotee su dee jox leen ma doom kum doyul nee ko li ñuy laaj noo koy def bu nee jox ki toogal sëñ Bamba doom jox leen bu fay jotee séqaloon ko moom daan na fii ma toog ba bés penc fi toog su diglee def leen Cheikh daa wax su teree ba leen su laajee jox leen su wote wuj leen su xamul ma xamal ko sa waaja su amul ma amal ko sa waaj jii la xoolal su mënul ma mën a ko may fay te du ma jeel la li yowaa am di faal seex Mustafa faal sëriñ seex jëmb faal yaa mat boroom lii du neen faal yàlla la faal sëriñ seex jëmb faal bu doon neen faal du sore du nëb góor faal sikare faal faal ndamul góor faal ngërëmoo yanu moom kaa noon sëriñ seex jëmb fu la neex kaay dëpp faal du daay faal sëriñ seex jëmb du nu delta te ginnaaw laa ilaaha illallaah ci loxo la ne ci loxo moo tax moo tax jot si rek jot ci daa lu koy saw lu koy saw nga ne ñu dënn waaye dënn léegi moom takk bi képp la gaa yi mais jëmmi jëmmi suñu jëm gaa yi agguñ ci. waaw général nee na ndeeru suñu seex jëm képp la gaa yi gis waaye jëmmi suñu seex jëm gaa yi ndax kat nañ bàyyi xel ne jëmm la joo xamante ne bii gàtt gàtt nag fi la ko Cheikh Rafal bàyyi moom fi la ko Cheikh Ibra bàyyi am ngërëmal bàyyam sëñ Modou Moustapha Fall te kooku mooy général bu mag bi nag ci yoon bi sëñ Modou Moustapha Fall moom mooy général bu mag bi moom moom boo ko bëggoon a xam tey dama wax ne bu fekkoon ne fekk naa fi taawu seex yi dama mag waaye su ay jamono juróom fukki at ci ginnaaw wala yooyu fekk na fi taawu seex yi micro centre dama micro trottoir laay def ci taawu seex yi damay dékk sama loxo rek sëñ Modou Mamoun Mbacke mu maam Cheikh Anta dékk sama micro sëñ Modou Xabban Mbacke mu sëñ Ahmadou Ndumbe taawu seex yi rek laay dékk laaj leen kan mooy sëñ Modou Moustapha Fall ñoo ñoo xam sëñ Modou Moustapha Fall taawu seex yi ndax ñoom la bokkaloon liggéey bi waaw ñoo ñoo ko xam 1945 bi sëñ Fallu toogee xalifa sëñ Mourou saa Mbacke dem sëñ Fallu dafa ne miraas naa sama bopp def ci jumaa ji na ñëpp def ni man wut ay tool ngir jumaa ji miraas naa sama bopp def ci jumaa ji ñëpp def ni man sëñ Mourou saa Fall wut carnet teg na lu waaye sasoo na nga ko xam na nga ko wax ñu ubbi carnet bi teg sëñ Mourou Mamoun Mbacke mu maam Cheikh Anta sasoo 500000 ci jotaay bi téeméeri junni. te booba téeméeri junni yombul mën man koo dégg waaye doo ko gis de waaye gaynde la joxe na ko de ne sasoonaa cinq cent mille bañ noppee seex Moustapha Fall ub carnet bi am ko ko joxoñ ci seex yi du jar kenn du wax turam du jar tudd turam na ko yow Moustapha Fall yow mi fi tebbiw sas yow loo sasoo sëñ Mour Moustapha Fall ub carnet bi na sasoonaa jumaa ji feeg jumaa jaa ngi fi du ma am dara suñ ko masaane jox ndigal du maye du leble du saraxe te day ñàkk këram da koy waaw kër gi lay ñàkk sëñ mu Moustapha Fall gis naa journal boo xam ne mi ngi génn mille neuf cent cinquante defe naa quinze quinze juillet xaw ma quinze juin mille neuf cent cinquante la wàcc liggéey journal boobu xam ngeen lu mu bind sëñ Modou Moustapha Fall wàcc na liggéey sëñ lu jaaxle na journal Paris Dakar la am na ñu am journal ba tey sëñ Modou Moustapha Fall wàcc na liggéey tey sëñ Fallou jaaxle na waaw sëñ Gunda Yacine Doki moo ma ne keroog ba mu wàccee liggéey ca Touba bañ ko indilee sëñ Fallou da koo fat ca wanag wa nee na parfum la tiim biteel bu sot jeex mu sotti beneen da koy wër rek genn genn kàddu lay wax ca kaw Moussa Fall jàmbar ji wàcc na Moussa Fall jàmbar ji wàcc na Moussa Fall jàmbar ji wàcc na te takat liggéey bu rëy bi mu liggéey lépp ba yëm àddina 57 ans la 57 ans la dund 1893 1950 57 ans la dund 1893 1950 la wàcc liggéey sëñ xalifa Fall Maajoor Baye xalifa Maajoor ci njëriñ taal bi sëñ Mourou Mbène ma ko wax nee na ma naan naa attaaya joo xam ne sëñ Tuubaa ko xel ci loxol boppam na ko jàpp sëñ Mourou Moussa mu jox ma ko. Baye Bassirou mbay moom Baye Issa Mbaye nga xam ne moom Modou Mbaye Issa bokk Baye ak Cheikh Mbaye Kange Baye Bassirou Mbaye nee na maag sëñ Mourou Moussa am ànd nañ wër ci réew mi ay guddi ñu ñëw nee na biñ dikkee bañ xëy ba saam Cheikh ubbi Baye Bassirou Mbaye nee na maa yor daal li sëñ Mourou Moussa ak kaalam nee na addiye jëm indil Seex Ibra Faal bi mu nekk ci palanteer bi saam Seex daa dawal loxo yi doxal ñëw acca doxal ñëwal may ko dama wax ne kooku dafa mat di fàttali ko ak a waxtaane te jëmm ji Cheikh Moustapha Fall mu jeex tàkk la moom rek la gëm moom rek lay noyee mas na maa dégg ci sëñ Omar Dumbuya maa ngi ziar baax a baax mu ne sëñ bi mas na ko wax ne su may waxee yow ba ne la barke Mour Moustapha Fall yegg na garas moo tax keroog bi Baye Bassirou mbay àndee sëñ Modou mu Fall ñëw fi Cheikh Rafal ne Baye Bassirou mbay ne ma lamb addi yi addi nee na sëñ Modou Moustapha Fall jël addi yi wuti woon di ko indil baayam Cheikh Ibra bi mu ne ko jëy maam seex daa daal di banque loxoom ne ko mussaa loolu mu mu ne ko addi yi mu ne ko dama yut ko sëñ Bamba moo war a lekk sa addi yi sëñ Bamba mooy sa sama sëriñ di sa sëriñ dama yut ko ko daan na ko waaye nag mussaa sam kodd ak sam tabaski yow la war saam kodd ak saam tabaski yow la war Baye Bassirou Mbaye ne na ca xel mu rafetum sëñ mu Moussa Fall nee na mu am leneen lu làmbaat na ko def naa koom kodd ak kum tabaski Seydou Fall door ko nangoo jël waaye damay wax ne njàmbaaru sëñ Mourou Moustapha Fall ba wut ba Cheikh Rafal bàyyam dem mu door di ko wone bi fi Cheikh Rafal di nekk la sëñ Mourou Moustapha Fall wane njàmbaar goo xam ne ci kanamu Cheikh Rafal mboolem kum bokkal jamono xam nga ne kii góor yàlla la ndax lii ma lay nettali xam nga sëñ Cheikh Fall Baye góor sëriñ Modou Aminta sëriñ Cheikh Jëmm sëriñ Cheikh Fall mag ñi wax nañ ma ne sëñ Modou Aminta ak sëñ Cheikh Jëmm ñoo bokk fu ñu gënee jamono Daaru Fall sëñ Cheikh Fall gënee jamono Ndakaaru waaye sëñ Cheikh Fall ak sëñ Modou Aminta ñoo bokk at mi 1918 lañ. Mhm. sëñ Touba leen dalal alxuraan ci njaarim ke leen raxoon mooy Cheikh Anta Diop waaw Cheikh Anta ak sëñ Cheikh Fall ñoo bokk fenn genn kees gu leen sëñ Touba dalal la ci njaarim mhm. waaw loolu kay ki ma ko nettali sëñ Mbacke Fall président nee ma Cheikh ko ko wax. ci biroom ci université waaye seen bàyyi sëñ Mourou Moustapha Fall laa lay wax keroog bi sëñ Touba battalee liggéeyu jumaay Touba sëñ Mourou Moustapha Mbacke te ku baax ki dem ñu war koo tàmbali ñu ne li war a liggéey jumaa ji ab raay moo koy jële njaareem indi ko Touba keroog mag ñi wax nañ ne keroog biñ tàmbalee waxu raay bi sëñ Mourou Moussa waxtaan cee Cheikh Ibra Fall junni nit ak juróomi téeméer ya ko doon gas Cheikh Ibra Fall la joxe juróom-ñaar téeméer ya loolu mag ñi wax nañ ko juróom-ñaar téeméer Cheikh Ibra leen joxe waaye réunion yañ ca def ngir ngas ma pour ñu déggoog tubaab yi réunion nañ ko ay yooni yooni yoon yoo xam ne am na ci yooyu Cheikh Ibra fekke na ko am na ci bés ma ci waxtaan ak Baye Moustapha Seck defe naa ñu bari seetaan nañ ko ci Lamp Fall am na ci réunion boo xam ne Baye Moussa nett na ma ko ay yoon yoon yoon yoon ndax bàyyam maam Jibril Seck fa la ko fekk te sëñ Moustapha Fall la nekk lool ne Cheikh Ibra Fall a ngi toog sëñ Mour Moussa Mbacke ngi toog sëñ Mour Moussa Fall a ngi toog mag ñaa ngi toog tubaab yaa ngi toog tubaab yi santa sëñ Mour Moussa ne ko nangam su amul raay bi du am. ak Cheikh Mourou Moussa wala ñu jëm di toog. si sëñ Mourou Moussa Mbacke Cheikh Ibra àdduwul moom waxul sëñ Mourou Moussa Fall mi jëmu ji moo na bërët wër bàyyam Cheikh Ibra Fall ba jàkkalu Cheikh Mourou Moussa Mbacke ne ko Mouhamadou Moustapha tubaab yii luñ la wax nangul. lu tubaab yu wax neel waaw nangul ne ko li ko dalee njëriñ ba tuubaa man mu saafal foo mën a tëral fekk bañ danaa fa tëral bañ seera fal fudd def nii loxo mi nii bu ko masaane def maa ngi ne yëg ne hé hé doom ah Moussa Fall sama doom jërëjëf doom ah Moussa Fall doom jërëjëf doom waaye xam ngeen ne ku toll ni Cheikh Rafal ku nangoo àdd ci kanam yaay kan ku toll ni Cheikh Rafal ku nangoo jël engagement ci kanamam yow yaay kan kan mooy sëñ Mour mu Fall ni sëñ Touba doon liggéeyloo Cheikh Ibra Fall noonu la doon liggéeyloo sëñ Mourou Moustapha Fall waaw sëñ tubaa da ko daa sant liggéey ci te booba bàyyi ma ngi fi ok mun ta ñàkk mun ta ñàkk de waaw lii mun ta ñàkk de bo bopp moom moom bañ tuddee sëñ Mourou mu da nga gis kenn par kenn kenn par kenn waaw moom mii sëñ Saliou Fall mu sëñ Mourou Moustapha lay bàyyam ñoo ngi nii sëñ Saliou Fat Sow ñu ngi nii toog ñu ngi nii waaw kooku mooy dal jàmm ñëwal. waay jox ko jox leen waay jox leen jox leen demal demal. asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi mbokk taalib yi fi teew yëpp ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax ci turu sëñ Cheikh Fall Ndiaye Mbeng mi fi teew moom sëñ Modou Moustapha Fall di leen di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi ak ci teewaay bi ak ci yitte ji nga xamante jox ngeen ko mbirum sëriñ bi mu ne nuyu baax ci turu sëñ Cheikh Fall jëmb mi nga xam ne moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima te boobu ba léegi ñu wax ni sëñ moo fi teewal ndax kenn ku ci ne xam na diggam ak sëñ Cheikh Jëmb waaye kenn ku ne xam na it ab taxawaayam ci lépp bépp xew-xewu diine wala lu aju ci yoon wi te sëñ Cheikh Jëmb waroon caa teew waroon caa wax waroon caa def miin nañ ci jataay yi fu mu ko joxe ndigal mu dem teew fa nekkal ko fa kon it lu mel nii bu amee yàlla dogal suñu Omar mii nga xamee moo taxawal bis bi mook mbooloom ñi mu ko àndal ñëpp yàlla dawal na ñëw nañ ba kër ga yégal ko sëñ bi booba sëñ bi tamit rafetlu ko bu baax a baax ndax képp koo xamante ne dangay ngay liggéeyal Cheikh Ibra ko sëñ sa jëmm maanaam liggéey boobu koo ci képp koo ci xajal dugal ko ci rek yéene nga ko yéene nga ko lu baax sëñ bi it ban fa yegsee mu sant leen gërëm leen bi bi bis bi yegsee it maanaam mel na ni kenn doyu ko ci teewaay bi ku dul jëmmam ndax ñun ñi nga xam ñoo fa nekk ak moom di ay dongaam yu nekk ak moom miin nañ fi xam nañ dëkk bi mën nañ ko fi tamit teewal waaye teewaay bi kenn doyu ko ci ku dul jëmmam waaye ñu am yaakaar bu baax ne lépp da koo def ngir liggéeyale ko magam ñu baax ji suñ sa jëmb ci am yéene fépp fu mu war a teew am na yéene teew fa mu teewal ko fa mel na ne loolu mooy tànk siñ bi kon mu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal ngeen yàgg man lii ngeen gën cee góorgóorlu nag bu baax a baax ndax sëñ bi seen bu yëngukat ci sëriñ bi mel na ne ba ngeen ko tàmbalee ba nëgë nii sëñ bii dara ëmp ko ci ndax bu fekkee teewu fa it ak njabootam ña ngi fay teew ñu gis taxawaay bi te ñu ngi ko koy àgge kon mel na ne bu ngeen mënee yëngal dara mu am yéene yi man faa teew seen taxawaay ak seen pas-pas ci liggéeyal sëriñ bi moo waral loolee mën a am ndax jataayam fi mu ne nii mën a wax ni nekkatut lu yomb ndax at yi ko ko waaye xam ngum xam ni seen seen yéene ak seenu bëgg lépp génnul sëriñ bi moo waral mu mën a sonne teew ci jataay bi kon loole yi nag ne leen gën a mënees naa wax ni mënees na caa jëleb soññee bu rëy rëy ndax ndegam ñi nga xam ne ñun ñooñu jiitu ci yoon wi maanaam ñoom ñoo ñoo amagut yéeney wàcc kon sàkkaa ñun ñi nga xamee dañuy doog a tàmbali la suñ bay jaxat doon wax rek mukkee ki jàllaa bi ak xaftaan ak i parisol kuy door a jébbalu fab yi moo nu muy jëme kaw mel na ni kon yooyu noonu ak yu ni demee du bagage kuy door a jébbalu ba mel ni ñun te moom mi li tax ma xam ni wàcc amut daa am ak koor ñuy waxtaan ñuy waxtaan koorog daaw la ñuy waxtaan ba ma ne ko ah ñun di buñ sañoon daal euh, liggéey bi day dem dañuy danga ñuy ñaanal ban dem ba euh, bu ak seetee yow maanaam doo xam sax nan la mbir mi demee dañuy jëf lépp rek waaw waaw mu ne waaw waaye loolu damaa bëgg di ko ànd ak yéen kon ma xam ne man loolu ku ma ko ñaanaloon dama naa ko amin kon moom dama bëgg nga ñaanal ma bu baax a baax ma taxaw la ci liggéey bépp dama naa la amin yàlla na ko yàlla man loo waaye ba mu ne amin yi dañ ma ko ànd ma xamal ne moom fa su guddi wàcc kon ñu ngi koy ñaanal gudd fan te ko ñaanal baax ndax bërki démb daam ko fa ñëw ma koy wax suñu doom bàjjen la mag ko di wax ci wàllu wér-gi-yaram di waxtaan ma ne ko sëñ bi kii dafa ku bëgg bakkan a ngi nii mu ne ma ne ko kii bakkan dong la bëgg mu ne ma képp kuy liggéeyal yàlla war ngaa bëgg bakkan kon ñun ñëpp yàlla nañu yàlla dimbali may ñu gudd fan ak wér ak te ba yéene ji nga xamante ni moom lañu amoon liggéeyal ko sëriñ bi ñu def ci lu kawee suñu njort sëñ bi daal am na mbégte bu baax a baax a baax a baax te it mbégte mi yomb naa xam mooy teew teew gi mu fi nangoo teew maam nangu fi yàgge nii mu fi yàgge te loolu lépp seeni pas-pas moo ko waral kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax te di wax loo xam ne tam da koy wax toujours mooy leen soññ baax ci ak sell di fexe di jàpp tey sellal ndax da koy wax saa su ne ni Modou Yaay da da koy wax ne ko seen bàyyikat daanañu digal njàpp daanañu wax bu ngeen demee tey ci tool yi ba ñëw na ngeen jàpp ba la jël ci téere yi jàng ba yàgg mu leen ngeen ci boole turu yàlla bi kon nag loolu rek mooy li nga xamante ni moo sëñ bi mooy alo mooy ci loolu la nekk te loolu moo di ab santaaneem tamit kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm kon it maanaam ñu fas yéene ah, maanaam maanaam taalal sëñ bi ñaanal ñu incha allah waaw. waaw dafa sëñ bi dafa wax ne sëñ Omar dafa wax ne moom kat yàlla dafa dogal sëriñ bi moo fi sëriñ Cheikh jëmbu tey ndax ah, sëriñ bi doomi sëñ Mourou Moussa Fall la. bokk ak Serigne Cheikh jëmm lépp waaye jël léppam jox ko te lépp lu sëriñ bi def moo cay jiitu moom la sëriñ bi di yabal ci lu baree baree bari loolu ñu bari xam nañ ko moo xam addi yi moo xam liggéeyu tabaski moo xam lu mën a xew kon nag tey bu teewee fii moo fi Serigne seex jëmm ndax ñoo bokk seex Mourou Moussa Fall ba pare mu jël léppam féetewoo ak moom kon nag sëñ dafay wax ne bu fi Serigne Cheikh jëmm teewaloon boppam tey dañuy dajale addiya jox ko loolu tey moo fi Serigne Cheikh jëmm dafa bëgg ñëpp fekk ko fii ñëpp fekk ñu fii ak addiya ñu la ilaha illallah muhammadu rasulullah fa la la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله محمد رسول الله